ma leen ko waxee sànq rek ñi ngi leen toppal safaru Balla Gaye ñi ngi fii ju golf waaye ñu toog ak kenn koo xam ne day rek ci moom nag ba pare mën naan di xaritam muy Sa di Saliou euh, Saliou nuyu naa waaw ñu ngi lay fay ñu santaat bu baax di wax ne jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba waaw santaat yàlla bu baax bu ñu may tara fekkee ak kattan bi ñu ko mënee ban yëg-yëg nga ci lii bala Gaye di tef di ko def at mu jot di ko taxawal waaw mbégte la rek waaw lii moom li dëgëral lislaam la rek sëñ woote te sëñ Tuubaa lépp lu muy defee yàllaa ko ñor ak yonent bi waaw kan képp ki nga xamante ni yaa ngi sàkku ci ndigalam yaakaar naa ni ndam la nga ci am waaw. mu mel ne du benn fan du ñaari fan juróomi fan la. waaw cinq jours la. juróomi fan la. tey la tàmbali bisu set mu daaneel gàtt. waaw bisu sàkk dañoo war a daaneel gàtt. waaw xëy na gàtt yi sax mën naa ba pareegul ba moytul waaye daal bisu yàlla sàkk ñaan nañ yàlla dina am yi te xeet na ko aussi bu doon sagoom cinq jour yi euh, cinq jours yi bi ci nekk danañ rey cinq gàtt mais xëy na doole yemul aussi waaw xëy cinq jour tamit euh, bëri na bëriwut yoo xamante ni chaque jour war nañoo xëy di génne bernal moo xam ci suba gi moo xam ci midi bi moo xam ci guddi gi tamit waaw ndékki añ reer yaakaar naa bis yàlla sàkk na ci am lan ngay wax ci ñi nga xam ne yàlla dénk na leen teraanga ñu ëpp Balla Gaye dégg xaalis foofu te duñ def taxawaay bi lan ngay dénk ban message nga leen di lancé waaw xëy na ni ku nekk na yaa xam ni nga amee sa teraanga yaa xam li nga bëgg a def sa teraanga du ñu wax di ŋàññi kenn waaye di wax ni bi si mel nii dafa dafa da cee dafa baax nit di ci jël sa alal di ko def baa nga jël sa engagement bopp nga di ko def même boo def fenn fukki dërëm bi ngay jël di ko ci def yàlla xam na ni bu déwénee dina la jural ñaar fukk waaw lu barke la kon yaakaar naa ni boo ci amee fukk doo ci dafay fukk am ci ñaar fukk. bool ceeg am ci yàlla waaw sant yàlla la kon sëñ Tuubaa dama naan defal na lépp waaw yàqu fi dara lépp ñun la waaw mënoon naa defal ngir boppam mënoon na ko yemale ci boppam wala nga jabootam waaye liggéeyal la yàlla suñu borom ba yonent bi gërëm ko lépp ngir suñu avantage la kon boog santaat yàlla baax di wax ne jërëjëf sëñ Tuubaa waaw. l'islam am ndam démb barki démb waaye waaye yoonu murit amati ndam ci lii suñ Tuubaa taxal fii ci Masaalikul Jinaan loolu it ban yéene nga ci am lislaam moom ndam yoonu murit amul ndam gis nga murit joxe ndigal bàyyi tere lépp lu ñu gis lu baax la rek dinañ ci dëgg seen tànk dinañ ci dinañ ci dinañ ci wasu seen lépp loolu yàlla may na ko ci xëdaru murit lépp luñ engagement ni lii dinañ ko def war naa ko ci yàlla soxla ñu mooy kenn dinañ ko ci def ku ñëw di nga gis ku ñëw ku di nga gis ku ñëwul waaye nag wax dëgg yàlla Masalik bee bëgg nañ ci de te képp koo xamante ni def nga ci dara it baa nga wat sa ak baa nga def ci sa ñaq wallahi lazim di nga ko gis waaw di santaat suñ Muntaxa di santaat suñ Muntaxa baax rawatina kii mu jël teg ko ci loxo mu liggéey ko ñu ngi koy sant bu baax ndax moom it keroog am na wax ju am solo bu mu wax. soxlawu ci dërëm ba mu koy liggéey yéenam moo ko gën a lu mu am defar na ko sëñ bi gërëm na ko te sëñ bu ko gërëmee mel ni gërëm na ko waaye na ko sëñ gërëm gërëmee am na ci lox am na ci ñaanu yàlla suñu borom bu baax waaye nag jàpp ni tax xam ne moom sénégalais yi ñëpp a ñaanal moom moom ñëpp koy ñaanal te it dama déggoon keroog benn message yu benn waay di wax nee na néewoon na ngay dégg ku jóge ci àll dem Dakar ñu na ko ñaanal ma. waaye jour boobu yaa gis ku jóg jëm Dakar ñu ne ko ñaanal ma kon kon sant yàlla waaw lii wax dëgg yàlla mosu fay sant yàlla baax a baax. ñu nag mu ci diggante nag Sall Abdoulaye Wade muy jubóo gu dox seen diggante hmm. waaye mu jaar ci loxo sëñ Mountakha loolu ban message ngay wax ci yi nga xam ne war nañoo wala dama dëgg rek ay dëgg. billaahi wallaahi kenn ku ci nekk yàgg ngaa dégg Macky Sall Abdoulaye Wade bëggoon nañoo jubóo. coow lu na nga dégg ko ci wax ju na nga dégg ko ci lu yomb ci lu dëggu ci néegi yàlla ci si ci ci gi yëpp lu ñu sonn ndax dama dégg gars yi gars yi gars ji yenn yenn euh, dama li ñu wax laa gën a nangu ñi taxaw ne jumaa ji du jumaa yi murid jumaa yi ñëpp na te it ba nga koy négéré gis na fa njaagu ñëpp a fa taarix yi a fa waaw kon nag sant yàlla baax jumaa dooy caaxaan néegi yàlla du ay caaxaan masaalik bee bu doon ay caaxaan la du fa taxaw gars yi sonn ci de waaye taxawut de taxawut de dégg nga waa ji mu wax nee na xaalis bi nga xamante ne moo koy defar li ko ci jaaxal mooy xaalis bi day ñëw naajement defar bi di naajement jumaa ji kon naaj Ablaye Wade ak Mat saal seen diggante naaj kon lépp dafa war a naaj ne jumaa ji taaroo taaral na diggante ñaari président yi fi ne ko xoolal am na ki génn yàggul dara ci defe naa ci loolu boobu su ma juumalee ci ci kàddu googu ci la génne te dégg nga Khalifa Sall li mu defoon ci jumaa ji te moom ñu ko xamuñu ko woon maa ngi dégg ñu ne def na ci 600 millions ak quelque tey jumaa ji ibbi moom ñu ibbi ko mu noonu dañ santaat yàlla bu baax a baax a baax fii ñu ñëpp benn lañu gis nga diggante kilifa yi fi nekk ñoo bokk seen deret kan bu leen a xaajale bu kenn ŋàññi kenn ku ci nekk nag am nga droit for fi nga for ku ci nekk am nga droit for fi nga for waaye wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa doyloo nañ ko ñun gëm nañ saison bi ubbi na Sa Thiès foo toll nag gars yi na la de. waaw saison moom ubbi na des na tuuti rek waaye nag euh, ñi ngi ci nag incha allah xëy na du ñu ñëw suñu bopp làmb mais nag euh, ñi ngi am coordonné ak yenn promoteurs yi parce que dina mënuñoo wax lépp. dañuy bàyyi rek ba mu féete boor ñu mën a taxaw li gars yi nam tuusub Sa Thiès xam nga bu ñëw xam nga jaagar jaagar njaap loolu la gars yi nam xoolal kañ nga koy amaat kañ kañ lañuy am loolu ñun ñi nga ne amateur lamb bi loolu la ñuy wër non na pour l'instant nii nii nii nii waaw cinq jours yi laa nam ba mu jeex bare waaw ma dugg ci xam nga weesoogul daal weesoogul xëy na daaw lu ma tombeel moo tax combat yi bëri taxawul mais gëm naa ni euh, lii daaw du doon ren parce que daaw moom kenn xam ne élection yi la gars yi gën a waaw te xam élection du moromu leen tamit waaw état la waaw état lu soxla kenn du xëccoo moom te état ñu jàppale ba tey stade bi nga gis mu taxaw aussi kon dañuy santaat yàlla bu baax comme année balance bi non maa ngi doog année balance man maa ngi doog année kon yaakaar naa ni du ci dara parce que man ba ma avant ma ba ma ba ma année balance ñu ngi ma dox waxi combat xëy adversaire bi moo amoon ay problème adversaire te en même temps promoteur bi tamit aussi day xool li ko arrangé mu def ko mais du càgg ni dañuy toog di xaar man maa doog a maa ngi doog mais nag du man dong aussi tamit te xoolal tey ay Siteu ñoom Ama Baldé ay ñoo xamante ne te nit mbooloo lañu buñ jógee Sénégal ñëpp jóg tey ñoom ñëpp gis nañu Ambulance kon am na lu tax mais ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñëpp kenn bañ ko cee dalati parce que yaakaar nañu. ma Sa Thiès doon day tey kii prochain adversaire am kan la ciblé kon kan la koo xam ne man la koy day man faa daal kan lay doon. damay bàyyi amateur yi choisir. man man man am na ñu ma choisir man ma wax ko man en tant que amateur man am na ku ma choisir ah pourquoi Sa Thiès Gris Bordeaux. waaw mais xam nga Gris Bordeaux ak Lac de Guiers dana dàq ku dee sa bàmmeel Gris Bordeaux Ama Baldé man pour ma ñaar yooyu ñoo dàq man ñoom laay delloowaat adversaire boobu waaw. ñoom laa ko yéene moom man wax dëgg yàlla ndax yéene naa Gris Bordeaux bëri laa dëgër wala mu bëri ko Ama Baldé boo xoolee moo dugg poule de grand man man génn ma dugg ma mais maa ngi ci buntu bi <laughs> maa ngi bi toog di xaar waaw mais xam nga xam nga tey làmb day neex ñuy wax dëgg bi nga xamante ni moom la nit ñi mën a déglu tey toog wax sa la neex yoo mën a yàlla mais nag dëgg bi moom mooy kii parce que mbëri nag koo ci gis ma ngay xool bu waxee lii nit ñi bàyyi xel man doxuma ci yooyu man li ma gën gënal mooy su may wax bu ko ni dégloo mu xam ne kii waxi nit lay wax. Sa Thiès Papa Sow. waaw yooyu peut-être combat la mais xëy na man gëmuma yooyu na taxaw parce que combat bi nañ ci yàgg nañ cee wax mais kenn ku ci ne am nga sa choisir du dëgg. fan lay yàqu man xam naa ne combat du yàqoo ci yow ndax ku xam Sa Thiès xam ne moom combat. yaa ko yaa ko teree neex fan lay yàqu. man xëy na combat mun na yàqoo ci man sans sans sans dépend ci adversaire bi nga ñor jox parce que yenn saa yi du ñàkk dañ lay woo bi mag day dal mbër bu ndaw mais làmb tamit dafa am loo xamante xaw na logique mooy bëre ki nga war a bëre moo logique mais wax ak ki nga xamante ni warut a bëre ak yow tamit da ngay reeba tas te waxi kase taxawulul làmb waaw nit da ngay toog gis li la arrangé nga xalaat ci baax mu doy la yow mi promoteur bi. nga woo ki nga xamante ne mooy manager bi woo mbërëm mu toog ñu waxtaan bu ñu jubóowee ci kàddu pour man loolu mooy yaxam combat coow li coow li wax ju bëri ji yëpp amul benn njëriñ ñàkk a toog waxtaan kese kese kese ma war lii mais promoteur bi mbëri moom ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi leneen doxul seen diggante. am combat bi nañu juróoma daal muy diggante Boy Niang Balla Gaye ndax tey ànd nga ci. waaw man góobamu taxaw nag. wax dëgg yàlla gëmuma pas gëmmu taxaw ndax tey ànd nga ci yow en tant que en tant que lutteur yow ànd nga ci loolu làmb la wala yow ci yow man na bu fekkoon dëgg yàlla dafa daan la dëgër nangu naa ko waaw mais comme moom da doon di dugg surtout il faut mu reculer waat tamit bëri waat comme man ni ma def noonu la lañ mën def mais pourquoi moog yow non non mënuñoo bëri inspi ñoom nañ mënooñ bàyyi fii deux ans trois ans plus tard làmb nañ boolewaat ñun suñu biir xamante ñu baax a baax mais nag làmb moom dëgg yàlla xam nga tey kii xuus si dem sottiwul di nga décret waat taxawaat xoolaat yoon bi ngay jël pour man loolu la laamu tëddee mais laamu du ay wax kase mooy comme li ma a wax tey su ma neexee mën naa xool suma benn mbër na mbër bi ak après fa lay mujj waxi kase la mais du laam du laam boo xamante ni du laam du laam boo xamante ni ñi bëgg nañ ko ko 100 pour 100 wax rek fi nekk dëgg yàlla. ci làmb Sa Thiès am na xaalis ci làmb. waaw. waaw am na xaalis. waaw sant naa ci yàlla baax. ñaata kër la am. aw ma dara aw ma sant naa ci yàlla non ma dara. aw ma dara. yaa tasee dara. léegi na daa mel kan la kan moo loolu. Ah, ni nga ko gisee moom moom xaalis rakam basketteur la ay milliards lay dugg seen biir kër. dégg nga li la wax rakam la moom mi ngay gis nii ay gétt nag la yor suñu làmm mu ñoom ñu ñoo ci mooy njaga alaadum talaa biir ah, lépp la boole <coughs> moo ñëpp xaalis fuuf xam nga tamit ñun. dama li ñuy fay bu doon moom la ñuy préparé suñu combat di ko bëri dërëm duñ ko am dañoo may nit ñu baax ñu ñuy jàppale te tey ñu mel noonu ñooy tax tey ñu mën a am ci yenn yu ñu sukkandiku mais bu doon loolu ak loolu rek mystique yi mooy vedette làmb wax dëgg yàlla sarax yi métti na moo dëgg yàlla bu ñu ci mënoon génne mystique tuuti. ko di nga gis. Ah, non loolu yéen ko ciy génne mu Sa Thiès bi ñëw nga seen ko ay saagam macha allah day mel ni ku kuy toxu xam nga loolu tam boo ko bëggee génne ci làmb tam am na ñoo xam sarm bopp moo leen neex ci làmb de. <coughs> encore daal loo judd fekk ko fa ko fa ba boo ko dolliwut defar ko doo ko yàq dëgg su ma ñëwoon fekkoon ñoom manga ak père du wales ñoom mbéy dañuy ngem dem rek te xam naa ni peut-être ñoom lañ daan ñun lañ daan musique su ma jumlee mu ëpp non non non non ñoom ay waaw te dëgg yàlla. boo xoolee tey euh, ñoom seen bëri dañ ngay gis kii dafa ñëw pour bëre kii ci xam moom ak ci dooleem waaye fii nag da ngay gis koo xamante ne amul fit mystique bi lay mottali ko ba amul doole mystique bi lay mottali ko loolu moom am na. fit ragal moom loo takk loo ko takk takk bët yi fit we xel may gis est-ce que ragal loolu dina ko dimbali ci làmb. man mun naa tàppet. loolu tàppet moom sore nga ak moom. Ah, ah, exemple laa jox man mun naa tàppet ragal la tey mun naa dem ci sëriñ bi. da ngay gis sëñ boo xamante ni mën mën na yóbbu sa yeewee ba nga ne ndong man mi tàppet bi su ma la laalee benn fay woo duma ma dolli. loolu mos naa daal ci làmb yow nga ñëw ñu yow la ba nga ni ngoon. man moom mystique mos na maa jàpp ku dee sa bàmmeel mais du ma wax ban làmb nag. wax ma ban combat la man ko koy wax man Fadal. ma ci xuus moom mais dama ne la loolu dafay am ci làmb làmb buñ ci génne woon mystique bi rek billahi wallahi wa taalahi ñu duñ sori. duñ sax sori loolu làmb moom am na ñoo xamante ni luñ tàppe tàppe doo gën añ làmb waaw. d'accord kon ñu ngi lay jaajëfal di kontaan di ñaan li des sa làmb lépp yàlla nañ mbégte yàgg na loo bëgg lii waaye saa bu la wooyee kale ma dóor ma ay ay porte vocale yoo xam ne sama téléphone bi di rejeté rek mais dañuy comprendre rek di ñaan yàlla doon la wér defal la jàmm ak tawfeex jaajëf.